sarax biha sudura man taallamu sarxan bihi la tantarihim zulamu sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasid bara'i barke borom tubaa santaat nañ borom tubaa bu wér ñu tey ji ci bisu màggal tubaa nekk fii ci waañ bi nga xam ne mooy waañu daayira Muxaddamatul Xidma bi nekk ci jumaay Touba nga xam ne waa organisation njiital Serigne fallu Mbacké ànd fi ñu ànd feek sëñ ak ànd feek euh, Serigne Euh, waañ bi nag bi ngeen fekk ni fi ngeen ñu fekk ni mooy waañu Moukhaddamatoul ma di toggal képp koy liggéey ci jumaa ji ñi nga xam ne si ñoo yor wàllu organisation beeg tàqali góor ñi di warma yeeg képp kuy liggéey ci jumaa ji rek fii la ñu waajalee bernde ci añ ak reer ak waaye sant nañ bu baax a baax a baax a baax a baax ci ci matukaay yi ci matukaay yi ci ndékki yi 6 euh, heures du matin dana fekk ndékki yi noppi ba nga ne képp koo xam ne da nga yaa ngi liggéey rek danga nga mën a yegg ca barab bi ngay liggéey añ baa ngi ni gis nga waxtu wi daanaka temb rek une heure et quelque rek commencé nañoo sóor lu jëm ci wàllu ndawal gi muy nag yi xar yi ginaar yi lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu bernde rek waajal nañ ko ba ci ceeb beeg diwlin bi mën naa ne li ñu wàccee ci ay xéwal fii ci ci ci ci ci wàññi Moukhaddamatoul Khidma bi maanaam mën na ne eh, mën na ci doxal ay fan yu bare bare bare bare bare ndax eh, bëgg rek ñëpp yëg seen bopp ci liggéey bi waaye képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci jumaa ji doo xiif doo mar doo am benn jafe-jafe santaat nañ bu baax di ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak wérle jërëjëf